بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه مبكي يتي الله مبكي يتي القرآن الكريم مبكي يتي دين الإسلام مبكي يتي ينطبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مبكي نيوغي نيدي انرجستري سنو فيديو نيمرو 1 تي بن استوار بني نتلي تي استوار يالا نتلي تي بير القرآن الكريم histoire bi ñu waaji nettali mbokk yi dina jël mëna am ay vidéo yu xaw a takku waaye vidéo yu gatt lañ ko ñaan yalla def ba mbokk yépp mën ka jariño ab histoire la bo xamni képp ku dib julit xam gi nga kay xam dina yok sax ngëm yalla yaakaar histoire la bo xamni da ñor yalla ñor gum ko ñor ba tax yalla ko awsa histoire bo xamni laata yonentou bi la xewon ca ñu waye teewul yalla dal di koy nettali yonentou bi ci biir alquranul karim ba tuddi ko sar nak fof histoire bo xamni ne mbokk jullit ak tooñaa ngi dëgg moo xewoon ñoo ñe nga xamni ñoo toñ ñeneen ña yalla wax yonentou bi alayhi salatu wasalaam ni fi leen jaar ak gaaye waye man fi la fas yéenee jaar ak ñoom allahu akbar mbokk jullit yi maa ngi leen di ñaan histoire bi nañ leen ko top vidéo par vidéo vidéo par vidéo ba histoire bi jeex buñ peree ñu daal di tafsir saar woowee nga xam ne moom la yàlla tudde histoire bi am na mbokk yoo xam ni am naa yaakaar ni fi ne nii jot nañoo xam histoire bi sax te duggaguñ ci biir histoire bi waaye bu soobee yàlla bu soobee yàlla képp koo xam ni déglu nga histoire bi wala nga jàng ko ci téere yi wala nga liir ko ci saar wi ba xam li saar wi tekki awma sikki sàkk ci ni bu soobee yàlla sa ngëm yàlla dina yokk allahu akbar mbokk yi mbokk yi yàlla wax na ci alquran bi laqad kaana fi qasasihim ibra yàlla nee na nettali yi ma leen di nettali ci al alquran ay njàngat yu dul jeex ñoo ci nekk loolu moo tax ñuy indi histoire par histoire di dem ci biir alquranul karim mbokk yi nga xam ne mën naa am ñoo ngi koy jàng waaye xamuñu li ci yàlla yi wax ñu ñëw insha allahu taala dal di dal di koy séddoo ak ñoom insha allahu taala ndax waxoon naa la ne la alquran mooy téere bi nga xam ne ku ci teg sa tànk ci ay ndigalam bàyyi ay tereem continue noonu rek jubal xocc wuy jëdd suñu borom boo teggiwul sa tank insha allah taala yak mom ba aljana mbok juliti kenn meunta amatu lay ci kanamu yalla yalla nee dama yuni ay yonantu wàccee tere ngir bu ngeen dajek man kenn bañ amu lay moo taxit nag histoire bi dañuy dem jël ko ben par ben insha allahu taala mbok juliti saar woowu wudi wassamaai idatil buruj mom lañ wara def ay video yu gatt bu soobu yalla yo xamne du di sal téléphone kenn setan ka dina yomb te mbooleem lu yalla wax ci sar bi yonantu bi nettali ko mbokk yi dinañ ko am insha allahu taala kon ñu ngi leen di jox rendez-vous kon ci beneen vidéo di yaan yàlla subhanahu wa taala yan nañu may fekke ak tal ba li ñu yéene pour baaxee ko mbokk yi ci histoire boobu mu mën a mat wasalaamu aleykum wa rahmatullah